salaamaaleykum wa rahmatullah man la Boubacar Ly président mouvement des Vrais Patriotes maa ñëwaat tey fii di jàkkaarloo askanu Thiès jàkkaarloo askanu Sénégal di leen euh, ndokkeel ci weeru koor bi ñu génn di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla yàlla nangul ñu suñuy jëf si koor gi euh, may ko mboolem jullit léegi ñun en tant que acteur de développement comme tous les vrais acteurs de développement dañuy ñëw taxaw askan wi taxaw leen ci ci ci fànn yu bari ñu ngi duppee suñu mouvement les vrais patriotes parce que euh, patriotisme boobu ñun dañ koy jëmal si suñu action yépp ñun ak ñu ñu àndal jëmal nañ ko ci wàllu social jëmal nañ ko aussi ci wàllu engagement politique loolu moo indi ñu ñu engagé bu taxaw askan wi ci biir engagement politique boobu nag y a des jeux d'alliance ñu am ñoo suñuy nawle ñu ñu àndal dem ci élection yi ñu weesu mooy élection locale yàlla nag defal nañ ci ay résultats yu honorable yàlla def na aussi am nañ ci ay sièges donc euh, ñu ngi euh, siège au niveau de Thiès Nord nekk nañu fa président de commission loolu day wane rek politique bu jotee dañuy politique mais liggéey bu jotee dañuy liggéey parce que au niveau de de Thiès def na ñu demandé woon. l'équipe municipale dañu confier la commission coopération décentralisée commission boobu la ñu dénk donc ñun Thiès daf ñu soxal rawatina Thiès Nord ci jéego yooyu la ñu la ñu élection indi yàlla def na ci sutura alhamdulilah rabi alamin ñu ngi firndewaat suñu engagement politique suñu engagement citoyen au au côté des populations parce que loolu mooy le vrai sens du patriotisme euh, Sénégal nag bëri na ay ay parti politique ku nekk am na ñu duppee seen bopp patriote am leneen waaye ñun suñu patriotisme dañ koy wane ci fànn yépp mooy engagement social au niveau suñu gox engagement au niveau de Thiès engagement aussi au niveau de la la mairie ba pare euh, loolu mooy wane aussi confiance bi ñu population yi jox ba élire ñu plutôt comme conseiller confiance boobu ñun duñ ko trahir moo tax aussi c'est un engagement ferme au niveau au niveau quand même de l'exécutif local un engagement ferme aussi toujours aux côtés des population di leen taxaw ci wàllu social ci ci fànn yëpp ci biir campagne bi dañoo ñëw am euh, dañoo ñëw euh, jeu d'alliance yi bëri woon na ñu fekk fii ay alliance yu bëri ay coalition yu bëri yàlla def nag ñu nag coalition waa Siggil Thiès bokkoon vision moo tax ñu ànd ànd nawle dem ci élection locale yi yàlla aussi defal defal nañu si quand ndam parce que euh, ñun ñu si bëri wàllu stratégie wàllu démarche de proximité Euh, tegoon nañu parfois nag am am nay des des désaccords parce que bon dans dans une organisation c'est comme ça mais ànd nañ ànd nawle bu rafet te ba yàlla may ñu résultat bi ñu may ba fu ñu toll nii euh, coalition citoyen ànd si Thiès ñëpp xam nañ tur tur bi mu am Thiès. waaw ba ñu ñëwee si politique bi engagement citoyen bi mu ñu indi si si li nga dañ ne ñun bu ñuy dugg ci politique bi aussi jéego bu ñu teg rek noonu jéego boo xam ne c'est pas vision boo xam ne bu bu gàtt la bu courte. nga xam ne da ngay campagne rek campagne ba jexe nga bàyyiwaat nga bàyyiwaat population ci seen ci seen ci seen état bi nga leen fekkoon moo tax yàlla def nañu defal nañu aussi euh, ñu am euh, chance am opportunité par rapport à notre réseau par rapport à notre engagement ñu jël lu mel ni ambulance jaglee ko su sunu sunu suñu gox poste de santé Diakhao xam na ni depuis bu mu existé ba léegi mosul woon am ambulance yàlla def ñu jël ambulance teg ko ci loxo population yi te loolu ba ñuy dugg ci campagne bi loolu moo nekkoon suñu objectif dañoo ne quel soit le cas de figure quelle soit la démarche nañ def yoo xam ne au-delà de la campagne day amal njariñ ñëpp amal njëriñ euh, amal njëriñ les gens informels par exemple mooy jaaykatu marché bi jaaykatu gerte bi ci buntu école yi euh, ñëpp le la commande le le commande en fait le le le jaxaaw waaw le le Thiessois lambda quoi parce que mm-hmm. ambulance xam na ñëpp ko soxla on a toujours eu des problèmes d'évacuation te c'est des te te enjeux yi fu mu toll nii wàllu santé defe naa loolu jéego bu mag la ci ci ci ci ci gox mel ni Jaxaw ci poste de santé Jaxaw waaw Abdoulaye Dièye ak euh, coalition And Siggil Thiès dañoo àndoon àndu nawle yàlla def na ànd nañ dem élection locale yàlla may ñu résultat bi ñu may mais nag ñun dañoo dañoo dañoo décidé léegi léegi dañoo décidé que euh, par rapport ak jeu politique yi am léegi par rapport ak jeu d'alliance yi ñun dañoo décidé man ak ñi ma àndal mooy le mouvement des vrais ñu xaarandi ba pare teg suñu stratégie ubbi yeneen alliance euh, quand même wane une rupture par rapport à la coalition citoyenne Angle Sud Thiès ci ci ci ci kàddu yi gën a gën a gën leer mooy suñu ànd ak coalition Siggil Thiès ci élection locale la yem donc comme euh, ñu ngi ñu ngi remercier toute la coalition citoyenne 22 organisations yoo xam ne ñun ñoo àndoon àndoon pour dem ci élection locale yi yàlla may ñu résultat bi ñu may léegi nag ñun am nañ am na euh, am nañ beneen vision par rapport au jeu politique actuel par rapport au jeu d'alliance dama ba ma waxtaan ak samay samay nawle ñi man bokkal le mouvement les vrais patriotes waxtaan ak kilifa diine yi nga xam ne ñun aussi ñëpp xam nañu ba ñuy démarrer ñëpp xam nañu toutes nos proximités chefs religieux yi lañ ci jiital te ñoom lañ demal aussi laaj leen seen seen seen i laaj leen seen avis mais dañoo mos a wax ni fekkee Thiès rek leen ñor li ngeen lekk bu leen ci ci loolu nag la ñuy continuer mais nag ñu ngi manqué manqué marqué suñu rupture ak suñu suñu suñu suñu rupture de compagnonnage entre ñun ak la la coalition And Siggil Thiès dinañ nag jox rendez-vous ñu nekk ak ñun mooy les vrais patriotes ak Thiès waa yëpp xam ne Thiès moo ñu ñor pour les prochaines joutes électorales ñu xool aussi dafa am yeneen alliance yu ñuy def ak yeneen coalition wala ñun dañuy demal suñu bopp ñu ngi leen ñu ngi leen di jaajëfal pour euh, demander pardon à tous les Thiessois et, euh, et demander leur prière aussi et vous dire aussi, comme on était engagé politiquement pendant les, les, élections locales avec la grande coalition Antiquities, nous remercions aussi le, la tête de file, M. Abdoulaye Nous venons aussi vous signifier que, que, le compagnonnage avec les résultats effectivement honorables qu'on a eu aux élections locales euh, s'arrête ici. nous, nous, nous, et, en tant qu'acteurs de développement et en tant que euh, patriotes, avec tous les, tous les vrais patriotes, d'ouvrir de, de, des perspectives pour les prochaines euh, joutes électorales. Euh, nous, nous engageons à, à, cheminer ou à engager de, de, nouveaux enjeux, à cheminer avec des gens qui, qui objectivement, ont l'intention de travailler pour les populations de Thiès, au la des de Thiès, des populations euh, sénégalaises. Donc euh, nous réaffirmons ici euh, notre engagement à accompagner les populations. Au-delà de tout ça, quand on s'est engagé en politique il y a un an, on avait dit au-delà des élections locales, au-delà même des élections, on, voudrait quand même faire des actions citoyennes qui, demeurent et qui resteront utiles aux populations. C'est la preuve, c'est qu'on a eu à offrir une ambulance aux populations de Diakhao, aux postes de santé de Diakhao, euh, parce qu'on savait que c'était un besoin réel et c'est un problème qui serait réglé au-delà des élections. C'est cette logique-là qu'on a voulu impulser avec euh, euh, nos, alliés de la coalition. Euh, et on continue dans cette logique-là. Maintenant, pour les prochaines joutes électorales, nous, sommes ouverts à cheminer avec des gens qui partagent les mêmes visions et les mêmes valeurs que nous. donc nous, nous, nous, ferons, nous ferons notre, une autre déclaration prochainement pour définir avec les vrais patriotes, avec les alliés, et euh, comment aller aux prochaines, prochaines électorales. Mais on ne va pas finir cette déclaration sans, préciser qu'on a, eu quand même des conseils des chefs religieux, coutumiers, parce que tous les gens qui connaissent le mouvement des vrais patriotes Les, les premières visites qu'on a eu à effectuer, effectuer, au début de notre engagement politique, c'était de, faire le tour des, des, des, euh, des, foyers religieux qui nous ont donné des conseils, qui nous ont aiguillonnés, qui nous ont, dit si l'objectif véritable c'est d'assister les populations socialement, politiquement, économiquement, euh, la cause elle est noble. Donc on est retourné les voir pour, leur signifier aussi que notre compagnonnage avec la coalition citoyenne en de s'arrêter ici. Donc, on est dans une optique d'ouverture euh, vers d'autres perspectives hein, hein, pour, pour, pour les prochaines joutes électorales. Nous vous remercions.